ci wéy ak bànneex bu mucc ay ci la askanu fukki dëkk ak juróom yi nekk ci commune bu Kër Socé gàttandoo courant bi nga xam ne moom moo yegg ci seeni diiwaan ñoo am mbégte mu mag ginnaaw ba làmp yi tàkkee ci seeni dëkk waa dëkk yi bëgg lool waaye tam di nettali jafe-jafe yi ñu doon dund laata ñoo am courant. lu ñu yàgg bëgg te lu ñu ko am yàlla dogal ko ci Malick sant Malick lool gërëm ko. sant nañ gërëm nañ sant nañ dañuy gën dëkk bi suñuy wal dugub dañuy gën dëkk bi suñuy suude suñu saret bu toj dañuy gën dëkk bi ñu machine yi ñuy béyee da dem àll ba machine ba yàq ba ñëw da ngay dem feneen loolu yëpp rek la na tey accès universel maanaam jotale courant ci mbooleem juróom-ñaar fukki dëkk ak benn yu nekk ci commune bu Kër Socé ñi nga xam ne mooy càkkuteefu meeru commune bu Kër soose moom muy woote doomi dëkk yi nga xam ne courant ba yegg si nafa ñu nekk ci àll bi ngir mën a doxal seen dëkk. yàlla def na courant bi ñëw na nag ñoom ñëpp si nekk métier bala yàlla jox ak dayo ba mu la jox ak moyen yam la jox moom ngay boolante nga dëpp ñëw ci dëkk bi soo ñëwee nag bu dee menuisier métallique la nga ubbi atelier ku mën a ubbi tailleur na ubbi ñu mën a def petit ubbi ay boutique nañu ubbi ñi nga xam ne mën nañu am ay frigo nañu jënd ay frigo ba ku ci nekk la la war nga def ko loolu mooy tax dëkk bi jëm kanam dëkk yi nga xam ne courant ba yegg si na bu baax liggéey bi soppi seeni dëkk l'indépendance de léegi ñu ngi toog di muñ di xaar